thank you bienvenue à vous ah dans votre toute nouvelle émission Flash tey nag si ki ma flashé du kenn ku dul doomu Pikine ah kooku mu ko waxee moo di Pape Diouf te moom yaakaar naa ne ko bu téye micro ñëpp dañuy d'accord mu nekk ci suuf nag di def lu am solo ma daal di ñëw rek temp nank xool seen bi nu mu demee gis ngeen spectacle bi ngeen fi gis macha allah xale yi sañse nañu ñëpp yëpp jaar na yoon kon boog li may daal di def rek mooy jox leen dig daje léegi ak moom ñu daal di koy dénk tuuti question ndax xam naa ne namoon ngeen ko amoon nañ ko ndax gëjoon nañ ko gis dafa nekkoon tournée kon boog à très maa ngi nii jàkkaarlook papp mu def soirée bu doy waar Pape ma lay laaj nga nuyu waa Leuz TV. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu Leuz TV di leen bëggee. voilà donc Pape ñu gis soirée bu doy waar ah. mais ma gis tamit lu gën a doy waar mooy fecc bu bees bi nga indi mun nga ma wax euh, fecc bi fu mu jugee. fecc bi de xam nga rek gars yi moom bu seen yaram tàngee euh, dañ lay xam nga rek dañ lay inspiré et puis je pense que musique ak ambiance ñoo ànd donc public bi dañ koy soxla te lu public bi soxla rek loolu lañ leen di jox quoi. donc Pape ñu gis ni que fan yi euh, gisuñu la ici au Sénégal di la laaj rek fan nga nekkoon ak ci yan projet nga nekkoon ak lan nga ñuy waajal. waaw xam nga man ça fait deux ans euh, defuma tournée européenne. donc euh, parce que par rapport ak sama calendrier dafa chargé woon mais ren euh, am naa tuuti temps bi album mu Rakkaaju génnee depuis novembre ma entamé nag tournée bi tournée bi dafa yàgg trop trois mois la donc euh, defoon nañu premier partie avant Korité bi ñu koree ba pare ñu dellu def deuxième partie donc des na troisième partie bu saba yàlla suñu tabaskee ba pare ba pare dinañu delluwaat Europe. donc dafa am benn rubrique boo xamante ni bu ndaw boo xamante ni euh, fàttaliku la. ñu gis ni que fan yi euh, suñu ñaari tambour major jóge nañ fi boobu ba léegi jotuma ci am sa impression euh, ma lay laaj rek suñu papa yooyu yàlla na leen yàlla xare àjjana nga sànni si tuuti kàddu tey jii bu la yàlla mayoon as benn minute rek bu nga xamante ni di nga ko nekk ak moom di nga ko nekk ñoom ñaar muy papa du Ndiaye Rose ak papa Vieux Seng Seng ana yan kàddu nga leen di dénk. waaw xanaa rek ni àdduna yaa mën a war xañ nga ma ndey xañ ma baay ba ñu diggee papa Dudu Njaay Roos dang nuy nax àdduna yaa mën a war xañ nga ñu ndey xañ ñu baay ba ñu diggee alaaji weeseng fay dang nuy nax di leen ñaanal yàlla xare leen àjjana ndax ñooñu euh, ay bibliothèque lañu woon ci sunu réew mii rawatina ñun askanu ngéwél Sénégal gépp a ñàkk ndax alaaji Doudou Ndiaye Rose ak alaaji Wee Seng seen ànd dëgg la woon et alaaji Doudou Ndiaye Rose nag mën naa ni ñu ko njëkk defal hommage rendre ko hommage ci laa bokk ndax bi may def sama premier anniversaire fële ci Grand Théâtre de Dakar moom laa rendre woon hommage donc euh, gorom muy bàkkan sekk di ma tëggal famille boobu ma bokk ci kon man maa ñàkk alaaji weeseng fay aussi euh, géwél yëpp a ñàkk mbay jéey fay ni ma mel ci moom ak ni mu mel ci man adduna bi yëpp xam nañ ko famille maa ngi leen koy jaal allié Baye Demba riche ak képp koo xamante ni yaa ngi nekk ci famille weeseng donc yàlla na leen yàlla yërëm xare leen àjjana. amiin sa dernier mot mooy lan. waa mais kontaan ci Leuz. Leuz TV Leuz TV in the house di la wax nag nga koj sa bopp ci site internet bi. mais man ci biir euh, fa lay nekk. yàgg naa ci nekk man maa nga ca biir. <laughs> voilà chers internautes gis ngeen lii laa leen indiloon tey mu di soirée spéciale Pape Diouf bi nga xamante ni fii ci Sorano toj na fi xar na fi ñaar génn na ay feem yu bees génn ay way yu bees génn ay fecc yu bees loolu moom c'est à revoir di leen jox dig daje nag sur flash sur daal leen di wan li nga xamante ni mooy xew ci coulisses yi wan leen li nga xamante ni mooy xew ci biir soirée yi wan leen tamit li nga xamante ni moo di impression artist yi fii lay xewee si flash sur à surtout pas rater avec Yacine à